jake lu toll ci ñeen fukk ak ñaar ci ay jigéen ak tamit fukk ak juróom-ñett ci ay ndaw directeur de l'emploi Amalon Nemekou, ci gox bii di fi Fekbar, président Sénégal Léopold Sédar Segor, tukkib nemmeeku bii nag tënku programme d'urgence pour l'insertion socio-économique et l'emploi des jeunes et des femmes xëyu Ndawni mom directeur Modou Fall bi mi ñëw mi ngi and ak délégation bu mag di ay nak collaborateur am si Fatick commune bu Fimela si gox bi di Dilor di jàkk ko si jigéen ñi nga xamanteni ñi ngi yëngu ci wàllu transformation des produits locaux tënku si GIE Salaan Sédar naka noné sax nak khatib nanu ben convention de partenariat ci alxames bi ñaari fan sueru septembre ci atum 2021 GIE bi nak amna ay jigéen yu takku yu nekk ci biir ñoom sax nag lu ni mel njàppandi la ci seen activité ndaxte fekk na leen ñu ñàkkoon ay jumtukaay doon liggéey ci anam yu taratar waaye tamit boole koog mbas mi di coronavirus indi ay jeexintal yu doy waax seen liggéey ndaxte am na ñu ay perte yu bari waaye tamit seeni clientèle ñëwatuñu

si wàllu visite bu ni mel moom directeur de l'emploi ak ñamu àndaloon ci liggéey bi dem nañu nag seeti kërub cosaanu président Léopold Sédar Senghor mi fi nekkoon njiitu réewu Sénégal waaye tamit ñaanal ko